fii ci diwaanu Guédiawaye tey jii nag ci àllarba gi ci la ñi nga xamante ni ñooy conseil municipal yi doon daje ngir daal di rek tabbu ñi nga xamante ni ñoo war a nekk ay adjoint waaye nag liñ fi gis mooy que ni waa PDS ñoom daal ñooy lëndëmal xelu ñi nga xamante ni ñoo di askan wi ginnaaw bi nga xamante ni door nañu li nga xamante ni moo di vote yi lépp jaaroon na yoon au départ ñu daal di valider ki nga xamante ni moo di seex Sarr comme première adjoint daal élection yi daal di tànn ki nga xamante ni mooy Aïssata Sow Diawara mu bokk fi nga xamante ni mooy ci Benno Bokk Yaakaar bi ñu wóoyalee nag li nga xamante ni moo di vote yi war a dem ci li nga xamante ni mooy euh, troisième adjoint yi foofu nag fa la lënt lënt yi daal di dooree ndaxte waa yeewi askan wi dañu proposer ab candidat boo xamante ne nii mu ngi bokk ci fi nga xamante ni mooy parti démocratique sénégalais waaye nag ñi nga xamante ni ñoom ñooy waa yeewi askan wi ñoo euh, ñi nga xamante ni bokk ñoom ñooy waa Benno Bokk Yaakaar jamono jooju dañu ni tànn tànnuñu kenn rek ngir mu daal di leen di teewal ginnaaw gi nag ci la ñu xaar ab diir ci la sax waa benn Bokk Yaakaar daal di proposer même candidat bi nga xamante ni moom la waa euh, Yewwi Askan Wi daal di proposer te mu bokk ci PDS ñoom it ñu daal di jëlaat même candidat rek daal di koy proposé waat ginnaaw gi nag coow daal di xaw a juddu ci fi nga xamante ni mooy salle bi ñu bëri rek daal di jàpp ni ñi nga xamante ni nii ñoom ñooy waa PDS ñoom ñoo daal di dem jàppale waa Benno Bokk Yaakaar am na sax ñu ko wax ci salle bi daal di ne léegi yëf yi leer na waa PDS ñoo daal di soutenir waa Benno Bokk Yaakaar ba tax ñoom ñu mën a am doole fi nga xamante ni mooy ci conseil municipal bi jamono ji ñuy wax ak yéen nii nag vote yi mi ngi nekk di wëy ñi ngi toll ci ñetteelu ñetteelu candidat bi nga xamante ne ni moo war a nekk li nga xamante ni mooy adjoint adjoint yi waaye daal di fàttali daan rek polémique moom foofu mu daal di fiy judduwaat te ñu ëpp nag li ñu jàpp mooy polémique boobu du bàyyi ko ci ñenn ñu dul waa PDS.